auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ci ñeen fukkeelu jotaay ak juróom ci téereb xaalim ak tàmbali woon nanu téereb xasidak minanul baaqil xadim xasida gi di minanul baaqil xadim xasiida la gu sëriñ tubaa di tudde ay mayam di waxtaane ay xéwalam yu ko yàlla jox waxoon nanu ne xaside cant yi ñooy wane may sëriñ tubaa yi ak i xéewalam gi nag da cee raw ndax tur wi rekk day tegtale kéemtaan muy xéewali yàlla yoo xam ne ci kéemtaani yonent bi salallaahu alayhi wa sallam la bokk loolu mooy tur oo dana ci gise ne sëriñ bi moom léppam yàlla da ko jaare ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam bu nu seetee li mu wax ci njëlbeenu xaside gi lu jiitu muy tàmbali bayit yi dañuy xam ne mi ngi bëgg a tudd ay may yu rëy lool te yéeme ndax daa wax ne xasida gi kenn du sikk sàkk ku dul yéefar du sikk sàkk ne li nu ci bind ni nu ko bindee noonu la amee li haadihi al qasidati allati laa yashukku fi kawniha kama katabtu illa kaafirun ba ñuy wax ja jeexe bokk na ci bayit yi Sëriñ Tuubaa indi ci xasida gi di ci sant boromam nee na ak dund goo xam ne kenn du ko gis ci kudul man loolu di kéemtaan gu feeñ ñeel yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xustu xayaatan xayri mojisatan baanat li usni xayri sëriñ bi moom ak dundam xeetu dund la goo xam ne mësuñu koo xam ci kudul moom loolu bu nu xoolee mbiram ci saaxiir ci baatin yépp dañu koy gis bu baax mësunoo dégg ci histoire démb ju ni mel ci ak bëgg yàlla kub yonanteem ba mu jaaral ko lu nekk doon koo xam ne kenn ku mu jamononteel mënu koo waxal lenn lu mu mos a def lu yàlla di tere ba ci ay noonam mënuñu koo bindal ab safaan te muy dégg ñoom ñoo ko jël yóbbu ko ci barab ay at ngir fitnaal ko te gisuñu mukk mu won leen ne lañu koy def metti na ko lépp rekk da ko jël bàyyee ko boromam seetalu yërmandeem ju bari ji mu am ci mbindeef yi ba ci sax ay noonam bari na lool yeneen mbiram yoo xam ne ak mbaax gu kawe lay tegtale ku dellu ci leen waxoon ci ginnaaw dinga ci gis lu bari moom nag ay kemtaanam daa dugg ci biir kemtaani yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax dundam gii nga xam ne mësuñu koo gis ci kenn mu wax ne ci kemtaani yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk ba sëriñ baa ngi wax ci xasida gi ne yàlla seetal na ma ci bépp sikk ak tawat mu woomatal ma ak wér ci bépp xemmemteef baraani min kulli aybin wa marad waqaatili waqaadili sixata fi kulli xarat yàlla da koo seetal ci bépp xeetu ayib buy nekk ci nit kenn du ko gis ci moom mukk mu defar saahiram defar baatinam wéral xolam lool ba lu dul yàlla du ci nekk noonu it la wérale woon aw yaramam ci xeetu tawat yépp kon noo ngi yem foofu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.